wàqe ma jàngal la bëre du ma wax nee nga nag ñaari combat am du la wax ñaata combat am feeg lépp avance bi ba pare ndax su ma la waxee li ma def ngop ngop daw combat avance bi kay lekk na ko ba pare non yow mën nga waa mën nga waa delloo ñaari champion ngeen bañante mënu fi am musuma dégg mm, ay delloo yow yaay wax rek après boo demee no toog ak seen mbokk ñu naan bul bëre ak booy bi yow lu nga foog loolu nekkul gaan mbër dalal li mu foog am boo ñëwee dama lay feree ne billaahi maa la wax loolu billaay dama lay. jege si ma yàgg ak yow. barke yonent bi war naa la nag yonent bi laal ñii yëpp mën nañ na seere waaw ñii moom ñii ba ñii depuis quatre ans ñu ngi <laughs> kon seede loolu sama tur la li bañ mooy arbitre bi sifflé bi ma arbitre bi sifflé man moom moo fi doon xaar aas moo doon xaar aas moom mi man mais ah mooy sama ménageur am naa droit balaa may jël leneen ma xaar ma sama ménageur yow amoo yow kon yow amoo kilifa yow amoo kilifa man sa mooy sama kilifa mooy sama ménageur mooy sama kilifa sa ménageur mooy wax sa place ménageur xam lu may bañ xam lu may bañ arbitre bi lamb na ma yow ba war a siffler nga naa ko xaaral ma xaar aas foofu aas amu fi place commencé depuis ma commencé combat ba depuis ma commencé bëre ba léegi depuis ma commencé bëre ba léegi ah depuis ma commencé bëre ba léegi musuma delloo avance sama adversaire ñooy jël avance ñu ñibbi ba pare après ñu woo ma ñu ne ma booy nee na bëreewuñu bii moom kenn du ko delloo ma wax man bii amul delloo de man combat moo bëri dina am ñetti adversaire bi may bëreel muy ñeent man adversaire yi ndoye ngi ne dama bàyyi ma fa mais damay la kooku noonu yow damay la yow moom ak gën a xam yow laa la wax yow sa ménagère bi sa ménagère bi a xam yow ñaata booyam ñooy daw dama mooy diglu ma wax la sëñ bi yow tàppen man mënoo laa duggee bay nan gerte ga ba ñor ak dugub ji fop eh. man mënoo daa waaw ma jógee Casamance man soose laa pil baari mandinkool man soose laa lekk lakkal lakkal kii moo daana lakkal lakkal ñu mboo mbaa boy ndilal oh, lakkal billahi mbaari mandinkool ana kamola kii dama koy daan mbaa boy ndilal deux minutes daa tax combat nga dem mbaa booy leen. Eh. ntel laa noonu ntel ntel mbaa buute la ko dindi. daa bëri wa. billaa daa bëri wa. ak yaa wax daal di yaamoo siyaatal nag. i eh. noppil yow. nga ne soose loo sekk ak moom. xam nga soose li ma seex ak moom ah soose laa la wax de xaw ma ne kuy soose soose mais soose li ma seex ak moom mu ñëw ma fay ko jox ko bonk lu ëpp mu xaral ma ko mu xaral la jox ko soose jox ko ëpp bu mag jox la waaw sa waay boo dee boo dee soose bi mu seex man di ngóol beetu bee moo la am na solo wooteel wooteel soose soose non soosé soosé yi ñu ngi yor ay jémmeñ nga xarmat man soosé xarmat laa seq ak moom ah, yow loolu nga loolu nga dugal sa bopp ay té wote wa assalamu alaykum baal bandingol baal kontona baal jara al bima al barima ciatu al tag al barino on naro ko rega ah, ni ciatu ama al be so duwala na ciatu ama boy ni naro commandé ni pour ñu vite fait ba boy ndola vite fait amna solo vite fait wotel waaw di woo waa kër baaba gi ma jugee areeral nga xool di waa kër baaba alima gi ma jugee waa kër baakar kër njoba kër malam mi nam mbayeen waa njaxate gor di woo huit village yëpp di woo waa Tivaouane bu baax baax waa Thiès di woo monsieur le maire Maguette Mbaye Kër Mbin maire Noto bi jamaa di woo Yves Lamine Cissé maire Thiès di woo Demba Diop si maire Tivaouane mu def ni daan def jënd biye yi di woo ñëpp comprendre nga di wax ni combat baa ngi noonu seen doom seen xarit caatu ama bu kër baaba amatina combat waaw di ngeen def na ngeen daan def ma def na ma daan def kii maa baare comprendre nga li ma wàññi ci point mënu maa baare bu ko kenn ñaata combat la am nag. ayca joxante leen loxo loolu